kii di Sida Thioune moom nag dañ ko suspendre mu ñëw liggéey si fële nga xamante ne moo ne ca RFM muy bërëb nga xam ne fa la doon liggéey ki ko def mooy kilifa yi ñu gën jaaraay ne ki nga xam ne mooy Babacar Fall moom xaatim googale communiqué ci leen bëgg a ñëw ak yéen waaye balay loolu dañ leen di dañuy teg vidéo bi nga xam ne moom la yëkkati woon ci jamonoy màggal gi ak li nga xam ne moo ko waraloon Sida dina ci ñëw ci vidéo bi waaye tamit ak vidéo après bi ndax Sida ginnaaw bi communiqué bi jàllee Sida daal dina def benn benn benn benn benn vidéo expliqué après ñëw ci ak benn jàngat presse nañ xoolaat seen bopp bu ñuy dox ci àdduna ba ñu jël ab télé tuddee ko télé faral Macky te saa bu ñu xëyee di am gàcce ci ñoom saa bu ñu xëyee di am lu naqadi ci ñoom ndax ku mel ni premier ministre Ousmane Sonko warul ñëw ba màggal Touba nekk ak xalif général nga xamante ne que événement gum tërëy màggal Touba ñu jël ay éléments 2018 du ko dugal bay toog di ci jéggalu nga xam ne kon li gàcce gënu ko rëy ci télé faral Macky nu foog ni fa la yam rajo faral Macky ñun na nga ko yokk ci réew li ñeex yokkuti ci ne xalif bi kat fi mu toll nii moo joxe ndigal pour maanaam euh, gan yi nga xamante ni dañuy jëlee bitim réew euh, ñu réservé leen fa nga xamante ni moo di foofu ci fa Fahd Palace. Serigne Bass Abdou Khadre moom mi nga xamante ni que moo yor kaddu xalif général di Mouride ne loolu de mosuñu koo sàkku mosuñu koo waxit kon yaakaar naa ni balaa noo génnee information dana war a dem def ji ay investigation c'est très wax bal la te lu saxee ba génn rek dem na mani di leen xam fu ngeen di teg seen tànkuwaay tey doxal dëgg nga xam ni dëgg mooy jëkk mooy mujj. kàddu yi mooy kàddu yi nga xamante ni moom la Siraaju ni ki woon ci jamono yi nga xamante ni mooy Màggal Tuuba li ko waral mooy eh, benn benn benn photo wala vidéo boo xam ni ñi nga xamante ni ñoom ne di waa groupe Futurs Médias rawatina télé eh, jàllale woon nañ ko kii eh, jamono yi nga xam ne ñu doon amal journal télévision Màggal Tuuba photo Ousmane Sonko boo xamante ni 2018 la woon peut-être moom moo taxoon mu jàlloon ci. d'ailleurs sax jot nañ ay xibaar ñu ni waa waa waa waa groupe Futurs Médias ñoom jégalu nañ jumte boobu nga xam ne image boobu nga xam ne 2018 loon mais dañoo gis dañ koo jàllale ginnaaw naa rek ñu ngi doon partagé moom si daan nag daf ci daf ci yëkkati ay kàddu que ni télévision faral Macky ak rajo faral Macky jóg leen ci ngeen nek nekk dictateur bi di jàll ak ni mu ko waxee ci vidéo bi rek comme ni ngeen ko déggee mais danoo gisaat ci vidéo bi si daan beneen vidéo tey ni gars yi buumu njaam gi dafa war a dagg. j'ai reçu une lettre de suspension parce que j'ai parlé de mon avis par rapport avec l'actualité donc euh, Sénégal dafa mel ni nag léegi buumu njaam moo fi bëgg nekk maanaam kenn du wax sa xalaat kenn du wax sa actualité kenn di wax li nga xamante ne mooy yu la ñor euh, si sa biir réew rawatina ak nag information yi nga xamante ne que euh, dafa yegg ci public bi ñun ñëpp ñu koy dundandoo. Sira Thioune am na loo xamante ni nëgg-nëgg boo xam ne góomu xol la boo xam ne naqar na ko foofu ca kër ga donte nag moom ku nekkal ni nga ko gisee moom gis na ni ñoom télé Macky mi xanaa kuy faral Macky moom Macky dem na kaa nga war a mën a war a mën a bàyyi faral Macky mais yow yaa fa nekk yow yaa dem yow bu mënutoo faa nekk wala sax am na lay déranger ca kër ga démissionnaire mais ñoom moom ñoom ñoom am nañ ñoom ci boo defee naka si dul noonu ñun la boo jalgatee règlement yi den la sanctionné lii ak lii ak lii fépp foo dem ay règlement moo fa am Ah, ba ci ba ci ñi nga xamante ñoom ñoo jiite ñoom ñoo ni eh, def nga ci naka dul noonu dan lay def li nga xam ne moo di offense en chef offense en noonu la ñu koy waxee. Amathou Camara dafa yëkkati ay kàddu yoo xam ne waroon na dépassé eh, ki nga xamante ni moo di président de la République ak premier ministre Ousmane Sonko moo waroon ngeen ñu def ko si jeex bi di yëkkati ay kàddu yaa di ko demale si ñoom ba pare bu nu waxee nga lii dictateur laat amoon droit wax fu ma féete am nga droit plein droit wax foo féete yow añ nga ko ba animateur nga yow doo chroniqueur doo journaliste kon nag libre nga ci wax lu la neex mais yow mënoo yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ñoom ci ñoom ni nga xam ne ñoom lay seen kilifa na na na kër ga di waxee ba pare ñoom bu la sanctionné nga génn ni sama xalaat laa wax déedéet yow wayoo wayoo mën ci wax sa xalaat kenn du la def kenn du la kenn kenn du la bindalaat ay kii gi la bindal ndax yow sa kàddu yi nga yëkkati nii ñëpp ko dégg. dana jaar seen tur wax ni tere faral ma tey li ngeen defati ni rajo faral ma ke li ngeen defati ndax communiqué boobu ngay wax ne sëñ Bass Abdou Khadre daf ko weddi communiqué bu dafa am erreur boo xamante ni ñu bëri xamuñ jóg te defuñ attention ndax communiqué boobu lu am la kayit gi publié nañ ko du benn yoon du ñaar yoon ñëpp gis ko loolu kayit buñ bind la Omar Diagne moo ko signé loolu dafa leer naa maa bay di maam bëri na ñuy ñuy def intervention ci mbir te xamuñu dëgg-dëgg lan moo ne ca ma te xam ba pare nag di door a wax daf ciy baax kon nag yow pare naa ba yow kër gi liggéey dem nga yow bu mënee toog say kilifa am nga lu la fa naqari am nga fa nekk dina gu xol am nga pare droit am yéene am peneen foo liggéey de si internet yaa ngi fi RTS a ngi fi Sen TV ngi fi Walfadjri a ngi fi mooy télé yaa ngi jàpp ne Ousmane Sonko lan fi nekkal wala ñoom dëgg lan fi nekkal comme que yow sa gis-gis da ngaa jàpp ñoom du ay waxkatu dëgg d'abord yow noonu nga noonu nga gis-gisee quoi gis-gis am nga sa peneen droit bàyyi fan ndànk bindal sa lit démission ñu ko nga bàyyi kër gi liggéey feneen mais mënul toog ci kaw bànqaas pare du gor di gor bànqaas loolu na bu ñu ko waxee dina am ne ko dégg ne maanaam nekk te kër gi wul mën bu dëgg di tee bu dëgg jibee nga wax ko déedéet du question de dëgg de mais yow say dëgg maanaam yow da nga leen di attaque mais pas ay dëgg ak ay nii ak nii mais danga da nga jóg attaqué leen parce que te am na loo xamante ni attaque personnelle la loolu moo ñoom ñu ñu ñu ñu ñu ñu jël décision yi nga xamante ni ñu ngi koy jël itam ñeel la yow Mais bova toga negwasaha kindirmi kani foro osman sunku bidemin disidle urumana jal avero enonu meo danka tegdilen tifara. Man kero zaman man man dua gise video isilarum domani siran mi iskami fabalegi mi awrage ayin khayta kirga. Kuno amnan lo hamanteni nakarina rayta kirga. Wahko? Boga wa hayo gayo bo binezele de demisona nga bai. Pasaga fi nira tura yo amga fi nedina guhar bo hamanteni. Mondo sa digan ding nom beo munuro si kortelog. Ah, kon kay kin forse tilo pronda tofa na ba taxam daal mi noonu bi xaatimaat man beneen kiit boo xamante ni Sirac Thioune dina dakkal landi ay yëngu-yëngoom foofu ci kër ga donte nag doo jëriñu dara ak ñu dàq ko tey jii Sirac bu weer day day def salaire am mais peut-être dina ko neex xam du ko neex loolu la naan frigo mais actuellement yi daal ni nga xamante ne ñoom ñoo di kilifa daal leen ko yóbbu frigo ndax dañoo gis itam maanaam vidéo bi daal Sirac donte wax na ci rajo bi waa eh, eh, rajo bi sax li ko waral mooy affaire communiqué Omar Diagne eh, boobu ñu leen doon wax peut-être loolu moo ci kii yoon rajo bi mais Sinaat dafa ca laafaale waa télé ba muy lu maam intervention bi sax boo ko déggee da nga xam ne carrément kii am nañ ne di nekk bu dox digganteem ak waa kër googu di Futurs Médias loolu nag yow yaa ko xam li ne sa xol boobu ak ñoom wala loolu soit doo leen jàppal wala soit la fi njëkkoon a jaar ba tax mu demee nii mais loolu warul mën a tax yow tey ji yow am nga liberté wu wax li nga bëgg wax lépp ci respect nag ba am nga liberté wax lu la neex mais ci respect alors moom duñ ko condamné fenn nim comme ni comme ni comme ni yoon dalee ci kaw Amathane Camara loolu dañ cee ànd 100 pour cent muy ci Ousmane Sonko muy ci fenn ak fenn rawatina président de la république waaw ni te yu ngeen ne mënatul na liggéey am nga di droit dem mu dem mais doo nekk di dëkk ci wax ki moom ay kàddu yu ñaaw ak di ko xaxar ak di ko saaga mu dégg bëccëg loolu am na loo xamante ni jëru ko ànd ndagan na tàngoo ndagan mais lépp ci respect. téléphonal Macky est-ce que j'ai cité la TFM est-ce que j'ai la RFM est-ce que j'ai cité quelqu'un moi j'ai parlé de téléphonal Macky comme nag ko a ko jël moomale ko seen bopp kon da ngeen di nangu ni yéen a nangu tudd téléphonal Macky lépp luy sama conviction ak lépp luy sama xalaat ci dëkk bi dinaa ko wax. vous ne pouvez pas me faire parce que man li may xalaat ci dëkk bi dinaa ko wax te tey laa koy gën a wax à bon entendeur.